asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di di nuyu di leen di dalal ci seen site d'information Sénégo tey nag ñu am mbégte def déplacement seet si euh, honorable député Seydina Fall Bougazelli fas yéene sekk ak moom waxtaan ci wàllu actualité rawatina nag actualité nationale mais laataa ñuy soobu ci waxtaan bi honorable député dañu lay bàyyi nga nuyoog internet yi lay seetaan. Euh, waaw euh, asalaamaaleykum waa Sénégo maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. Mm-hmm. di rafetlu invitation bi ngeen def ci man interview yi ngeen def ci man di leen wax bismillah am loo xamee ni il faut ñu wax ko mu leeral askanu Sénégal. Mhm. di leen dalal jàmm. très bien honorable euh, ci ab pàttali en 2019 amoon nga jafe-jafe ak yoon ci wàllum euh, faux billet ba yoon teg la ci loxo ñu toog ba ci atum 2020 nga am ci bàyyi ndiggandiku ba sax commencé say activité politique mm. présent lool ci landerneau politique bi ñu toog ba ni ci tey am benn vidéo bi génn. ñu gis la ci ak ak gendarme ci benn oto ñuy waxaat ci wàllum phobie boobu alors video boobu bi nga ko seetaanee ndax amoo ci mbetteel waaw am naa ci mbetteel ci samam réew waaye am naa ci mbetteel ci samay gendarme réew mais ci yow est-ce que amoo mbetteel ci yow ndax amoon na ndax amoo mbetteel ci yow également par rapport ak dossier boo xamante ne peut-être jàppoon nga ne classé nañ ko nga baal ma. donc ñu sulliwaat ko ci anam yu mel ni waaw xam nga même buñ ko sulliwaatee tamit même buñ ko sulliwaatee man fa ma nekkoon rek laa nekk yoon laay xaar mu def liggéeyam man aw ma lenn lu ma ciy ragal aw ma lenn lu ma ciy tiit la ma war a wax wax naa ko li wér te wóor man li ma jàpp man. xam naa ni tooñ nañ ma. bu wér ci naka. tooñ nañ ma bu wér ndax kama mhm. amoon loolu problème moo andi lii lépp bañ sa waxee lañ sa war a wax nag ba pare comme dama amoon benn terrain buñ ma mayoon yàlla def su ma benn xarit ma jaayañ ko ko Pape Malick mhm. moo ko jaayee ma woon di wax ci dossier bi mais comme que dem na ba toll fii il faut ma am lu ma ci leeral mhm. ak ay témoins ma jaay ko ko ak ay témoins mu jël sama xaalis jox ma 2 millions yi jël 3 millions yi dem yoonam ma di ko wër pendant 3 mois ba keneen bëgg terrain bi ku ñuy wax maa ajar d'ailleurs gendarmerie sax wowoon na ko. Mhm. jëli woon nañ ko këram ba mu ñëw ne kii terrain laa seq ak moom. Mhm. kooku ma woon ko terrain bi mu ne bëgg na ko mu jox ma 4 millions 800 desel ma 200000 dama dama koy 200000 dama siy jënd eh, gasoil dem Thiès. Mhm. à grande surprise ma ñëw ci terrain bi fekk fa numéro téléphone ma woote si daj wax Yacine Niang. ma ne ko sama terrain laa fekk fii sa sa numéro téléphone mu na ma dañ ma koo jaay terrain bi maa ko moom fekk mu na ma ban teree bi boo ko ne ma maa ko moom ma ne ko man maa moom terrain bi jaayu ma ko. Ah. mu ne ma noo tudd ma ne ko Seydina Fall mu ne ma effectivement kayit gi ma yor Seydina Fall moo ci nekk. Ah. kon man sama xaalis joxe naa ko mais kaa ñu gisee. Ah. ñu daje si buntu banque bi bi ñu ñëwee ñu toog ñu wax ma nag moom mu wan ma kayitu terrain bi wan ma 10 millions yi mu fayee chèque bi photocopie chèque ma. décharge bi ko Pape Malick defar bi ma ñëwee ma porte plainte ko police golf bii ci commissaire Diop. Uh-huh. commissaire Diop def liggéeyam normal convoqué ko ñëwul mu déplacé wu ay euh, élément déplacé ay élément am deux fois dem di ko jëli fekk ñu ko fa ñu wax ma ñaareelem fu mu dëkk ma dem fekk ñaareelam fu mu dëkk waxtaan ak moom expliqué ko ko mu ne ma newu fi mais bu ñëwee dinaa dinaa dinaa wax ak moom ma déposé plainte gendarmerie foire ma dem la commandant mettre en rapport avec un euh, naa Ngom léegi sax mi ngi gendarmerie Colobane si Ocatis xanaa fa la nekk léegi ñu déplacé wu deux fois dem fa gisuñu ko ba élection yi jàll ba yàlla def ma demaat ci kan mi taxoon ma xam ko waxtaan moom kan na ma ñëw na mi ngi fi mu ne ma mi ngi fi woo ko mu ñëw ci station bi ma wàccee kan taxaw xaar bu muy wax ak kan si laa ñëwee jàppanteeg moom foofu lii xew na xew foofu. Mhm. ma jël sac bi mu yore woon. Mhm. lan moo fa xew exactement parce que li ñu gis ci vidéo bi ci loolu laa bëgg ñu taxaw tuuti waxtaan mooy vidéo bu ñu diffusé ñu gis la takk euh, deri sekk la comme ça ci oto bi am ay kàddu yooyu yëkkati di ko fa wax comme lu mel ni yàqu na nañu ko gérer ak yu mel noonu mu doon ay kàddu yoo xam ne. waaw xam nga loolu lu koy indi. Mhm. le gendarme Abdou Aziz Mbaye moom moo ma doon filmé noonu. moom gendarme Abdou Aziz Mbaye moo ma doon filmé noonu. te nekk defal naa mu ngi dëkk Pikine gii teraanga ñu nekk defal naa ko fu mu sonnee man lay woo samay orange mu ne di daw si moom bi ma koy mujjee may xaalis sama oto la toog ma may ko xaalis buntu Pikine si buntu police Pikine moom moo ma doon filmé bi muy fi bi ñu affaire bi amee bi ñu dalee bi ñu ma wooyee ba ma ñëw affaire bi am gis ngeen ci faux billet du ay billet noir la génne ay billet noir la génne faux amu ci ñaari paquet te ñoom ñoo ko dajji si oto andi ko. bi muy wax nag na ma foo ko foo ko jëlee parce que boobu pour man pam Pape Malick xalaatuma woon ni sax yooyu dina dina dox ci moom ma ne ko lii moo ne ci oto bi mu ne ma léegi jàpp nañ fi kilifa gu ne teewul lañ koy réglé moo ma ko wax na ma tegal cinquante millions ci kaw taabal ji ma ne ko aw ma cinquante millions. moom gendarme moo moo la wax loolu. moo ma wax loolu moom Abdou Aziz mbay ci biir oto bi. ci biir oto bi te ay gendarme am ñu ngi toog nañu wax seen trayu bàmmeel mais mais honorable nga baal ma li si jaaxal nañu ko gérer pourquoi moom mu wax loolu te yow pourtant yaa ngi proposé ci li ñu jot a dégg nañu ko gérer wax leen mën nañu koy gérer ñu gérer ko noonu non moom moo ne nañ ko gérer déglu leen vidéo bi du yow moom moo ne xoolal nañu ko gérer laaj na waxoo ma ne ko nan lañ koy gérer mu am benn somme bu mu avancé ma ne ko yoruma loolu nga ne ko yàqu na booba nag mi ngi may filmer mi ngi may filmer capitaine Touré nee nañ leen dem ma ne ko nag loolu ngeen bëggoon man yàqu na yàq ma li ñu bëggoon waaye yàlla bañ na yàquwu ma. da nga jàpp ne yow négociation bi ni ni ni ñu ko waroon gérer loolu si ñoom la waaye di si yow. yow yaa proposé ñoom ñoo déglu waxtaan la rek maa ngi parce que ñun lu ñu jot a dégg. même bi sax. man maa leen la takk leen. en tout cas man personnellement. personnellement li ma gis kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu wax sa lecture ci vidéo bi man li ma jàpp ba nii may wax yow mooy honorable doon wax ne nañu ko gérer yàqu na ak yu mel noonu réaction yooyu ku ko dee comme li ma bëggoon wax. xam nga moom dafay dafay mel ni. Uh-huh. nga baal dafay mel ni aveu la. te gis nañ la temps yi ci beneen sit nga ne laalewuma ci dara ak yu mel noonu est-ce que loolu tamit a jaxasoo. ci ci boppu Sénégalais yi. déedéet man néew ba waxuma li waxuma loolu de uh-huh. sama oto lañ ko fekk ci man tamit xam nga ñoom dañu ne xale yi fekk ñoom sa avant boobu bi ñu jàppee xale xale dañ leen yóbbu géeju yoof torturer ron di leen torturer di leen dóor leen mas ay ay ay décharge ba am na si ku ñuy wax xalifa bi ñu ko yóbboo retour de bi mu demee police kaaf euh, ba ñu yóbbu ko retour de parquet police hôpital la fanaane di leen dóor di leen mas te xale yi jàppee wuñu leen dara fekkuñu si xale yi dara mais booba ñoom nee nañu nañ ma chargé man pour ñoom ñu mën a décharger xale yi à ma grande surprise Clédor bi mu ñëwee ma def fa une semaine Clédor ñëw andil ma PV bi ne ma mais man li presse bi di bind naan xale yi dañ laa xam mais yow xale yi amul kenn ku déclaré ni xam nañ la ma ne ko mais ñii c'est la gendarmerie ñoo koy def ñooy génne ay information di ko jox la presse pour bëgg ma massacrer man oh pour bëgg a yàq nguuru Macky Sall jaarale ko si man mais nañu xam ni doomu aadama dafa sacré nit kenn du ko yàq ñoom ña ko doon def ñëpp maa ko wax keroog ci télé bi ñoom ñëpp ñu ngi si ay situation yi difficile ba ci capitaine Touré ba ci capitaine Touré je pièce bien mes mes mots. ban capitaine Touré Seydina Omar Touré. oh Seydina moo jiite woon opération mooy bi ñu lay interpellé. bi ñu may inter problème Adji Sarr moo jiite woon opération bi kon Seydina Omar Touré bu ñu demaatee lii ñëwaat si Adji Sarr ku ne war na ko bàyyi xel mérité wuñu seen tëni bi gendarme bi ñu doon mérité wuñ ko. mais mais laata laata ñuy dugg ci considération yi parce que jàpp naa ne sax accusation yooyu ngay def wala allégation yooyu yu grave la quoi peut-être loolu mën nañ ci waxtaan après mais ba léegi ci vidéo bi. mën nañ taxawaat ci beneen fee boo xam ne mën nañ ko seetlu également mu doon loo xam ne bëgg naa nga leeral ko mooy billets yi ñu jot a yor yaa ngi ne sànq ay billets noirs la mais ba léegi gis nañ nga yor ne lii rek laa yor te dañ ma ko jox. non dañu wax man leen lii laa fekk lii lii moo ne sama oto. te dañ ma ko jox. te ko jël ko dañ ma ko jox si Pape si Pape laa ko jël dama ko jël si Pape Malick laa ko jëlee. bi nga koy jël xamoo woon ne loolu baax. non bu ma xamoon oto. su ma xamoon loolu et gis naa si sax benn xaw a montage bu si xaw a am mais loolu amul problème. mais man su ma xamoon ni montage bu mel noonu. xaaral xaaral mm-hmm. su ma xamoon ni loolu loolu loolu billet billet noir la dugg sama oto sëñ bi sëñ bi dama lay benn affaire man bi may am ma Macky Sall mi accédé wul au pouvoir Ablaye Wade mi liggéeyal naa ko bokkoon naa ci chargé de mission yi ma nommé woon doon leen fay doon ma fay dama yàgg daan sama doole. ba may am kër boobu Macky Sall euh, euh, nekkagul sax premier ministre kër gi nga dëkk bii ma dëkk yi maa ko moom yaa ngi dégg booba loolu yëpp yàlla suñu borom mu ngi ma doon suturaal te liggéeyuma ci ay foobu ji man ndongal Serigne Saliou laa duma ma lekk riba du ma njaaloo duma def lu bon du ma naan sàngara sama alal dama ko ñaq nekkuma député tey laa gën a dund mais jëf ju ñaaw ji nga xamee ne li tax sama xel dal ci nii. mooy ku ma woo rek. su ma nee la Abdou Aziz Mbaye la teg nga ci lu ñaaw. am na gendarme booy indexé di ko accusé sànq te newoon nga xam nga ne moo la doon filmé lu tax bi loolu passé mbir moomu taxawoo ci jéem ko rek lépp parce que xamoon nga ko comme xamoon nga ko te gis nga ko mu leer na ne mu ngi lay xam nga bi may filmé. booba moom amul droit sax di ma filmé. mais mais bi nga génnee xaaral rek waxoo ci. amul droit sax di ma filmé. tegu ko si lenn tegu ko si respect tegu ko ci dara mën naa ne ci reewande la ko teg ci reewande xamadi moom Abdou Aziz Mbaye ci xamadi la ko teg ci reewande benn ñaareel bi bi ma ñëwee ba bureau commandant ñu toog di waxtaan maa ngi koy nuyu cap commandant Mbengue muy ku baax jullit la ju jullit di nit ku baax dama honorable sama liggéey rek laay def lu ma gis rek lay bind te li ma lay laaj li may tontu rek laay bind jullit laa nag parce que moom sóor na trahi bàmmeel commandant Mbengue liggéey bu set wëcc la ci def billaahi wallaahi taalaahi dama sama trahi bàmmeel laay sóoraale yaa ngi may dégg mhm. capitaine Touré dugg na ci biir bureau commandant Mbengue maa ngi toog ak moom mu di mu jël téléphone di ma filmer moom yàgg naa maa yàgg naa filmer moom moom capitaine Touré. mais honorable yi. xaaral rek. Mhm. mu di ma filmer ma ni commandant nee ko mu arrêté film yi commandant Mbengue na ko arrêté sa film yi. ma jóge foofu dem rëbës ma def une semaine la samedi assemblée nationale amoon plénière amoon commission section euh, commission yi ubbi woon ñu ne woon ci commission yi jour boobu ñu doon nekk commission ñu andil ma këyit na ma procureur nee nañ ko extradé ma leen may lu xew ma gendarmerie pare naa ci yéen ñu ne ma noo procureur moo ne nañ la extradé parce que boobu dañu wax procureur ni Bougazelli foo billets yi bi nga ko yor ci biir bureau ma ànd ak ñoom gars yi amoon procédure d'urgence dem plénière foofu ñu doon defee commission yi fa laa waroon a jaar ma jaar fa yàlla suturaal ma sama benn député gisuma làqatuuma woon sax mais fekkuma fa benn député moom capitaine Touré moom ma jël si moom ak ñaari élément ak commandant Beng bi ñu demee si ubbi sama bureau xool filmer gauche droite gisuñu dara ma ne leen nag da ngeen di bind rapport comme quoi que ni yéen ñëw ngeen assemblée nationale gisul leen dara ma delloo ak ma delloo rëbës waa ji ne ma effectivement loolu laay def ma dajeeg tamit gendarme bu baax may fàtte turam mu ne ma honorable man jullit laa te ni bii ma sol du ma si lor jullit du ma si lor doomu li ma gis rek laay bind keroog li mu gis rek la bind ma liir ko mu signé bu signé ma dellu dem rëbës pourtant bi ñu génnee fekk ñoom ñu ngi doon balancer information yi ci ci ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi ak ci presse bi ñuy bind lu tax mënuñu leen jox ni bu gazeer yi dem nañu assemblée nationale euh, euh, gisuñu fa dara yëg ko xam nga yëgu leen ko maa ngi koy doog a wax tey boole koog acharnement bu metti te yëngaluma yootaa seen yi ñuy def ma dara alors de toute façon quoi qu'on puisse dire vidéo bi jamono ji mu ci réseaux sociaux yi kenn ku ci ne yaa ngi ciy demee sa xalaatu bopp et tout ça